13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës ñu dama koo jukki xam ngeen ne rassemblement bi nga xam ne moom la ñu wootee ca place de la nation mu ñeel ñi nga xam ne itam ñoom ñoo féete ci kujje gi autorité sénégalaise yi daal den di lànkal lu ni mel ginnaaw itam aw dogal woo xamante ni bàyyeekoo ci préfet bu Ndakaaru lam ca bokk na rek ci trouble à l'ordre public ak itam violation euh, bu euh, code électoral bi ak itam article L61 daañu ci ñëwaat nu mu gën yaatoo euh, rassemblement yi nga xam ne itam moom la ñu lànkal ñi euh, féete ci euh, kujje gi boobule rassemblement itam moom euh, Ibra Seck xam ngeen ne moom mooy directeur des mines mi ngi wax ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di ndaw ñu ñu bañ a topp ñenn ci ñoo xamante ni dañuy féete ci kujje gi ci yooyu la jamono itam militant yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca Pikine Est xam ne rek ne duñu des ginnaaw benn yoon daañu wutali fa nga xam ne moom moo di ca place de la nation dina bokk ci loo xamante ni daañ ko ñaawlu fii ci réew bu Sénégal wax itam tolluwaay jamono dund wu seer wi daañ ci def aw taxaw seetlu bu yaa bu ñu jógee euh, file dem fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu njaareem foofee itam doomi aadama yi nga xam ne euh, ñoom ñooy dund ak waylaago mer ba futt la ñu def la ñu bëgg bokk na ñu daal di leen di jox seen àq seen yelleef lépp loo xamante ni seen waruwaay la te ñu warum koo mën a jot euh, bàyyeekoo ci askan wi rawatina gouvernement bu Sénégal ñu daal di ci teggi yoxoo fële nga xam ne itam ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal xam ngeen kàddu yoroo diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbay mi ak itam wàllu càmm gi tax na itam Euh, ki nga xam ne nag moom moo di guide religieux bile di euh, Thierno Alpha Sow daal di woolu euh, ñaari camp yëpp nag ngir jàmm daal di dox fa nga xam ne moom moo di seen ak diggante ñu bañ cee nemmeekooti kenn koo xamante ni des na la boom wala itam des na la xoxatal ci wàll wi mbokk yi tënk yaa ngoog buñ ci noppee daañu ci doftal li nga xam ne moom la yéen i xëy ni ki tey te léegi-léegi ñu dikk ñu faram fàccee mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci euh, gën gi euh, nuyu xibaar yi ñu door ko na xam ne itam noonu la ko junjee woon bokk na ci rassemblement wi nga xam ne euh, ñu féetee ci nañ ko amal ni ki tey bu 15h jotee fa nga xam ne nag moom moo di ca place de la nation xam ngeen ne lu ni mel yi tam daal nañ leen koy lankal ginnaaw itam aw bataaxal boo xamante ni bàyyeekoo na ci préfet bu Ndakaaru ndamuñ jortu ne boobule rek rassemblement bu amee daanu jur li nga xam ne nag moom moo di violation bu côté électoral électoral bi ak itam article L ndax itam ci jamono yile dañuy bañ lépp lu soxol wàllu propagande déguisé fii lekk fanweeri fan xam ngeen ne lañ ca jublu bokk na ci ubbite campagne bi ñeel élection législative yi nga xam ne moom lañ nam amal euh, ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne itam euh, moom la ñu euh, dëkkmal bokk na itam ci li nga xam ne nag moom moo di menace de trouble à l'ordre public tax na itam ñu daal leen di lankal lu ni mel ci la jamono itam xam ngeen ne way takk der yi daal nañuy fees dell ci ndakaaru euh, fu ci mel ni euh, place de la nation fu ci mel ni itam euh, cité kër góor gi ba ci sax fa nga xam ne nag moom moo di ca centre ville lañ ca jublu itam bokk na ci càmmonteeg li nga xam ne moom moo di kaaraange askan wi yebal nañu itam suñu ndaw lépp loo xamante ni dañuy xibaar bàyyeekoo foofee dañ leen ko jukkil fii ci télévision Futur Média keneen koo xamante ni daal dinay woolu askan wi moom Ibra Seck xam ngeen ne moom mooy directeur des mines Sène la mu xamle ah, bokk na rek ci kenn ci ndaw yi Sénégal yi nag bu ñuy namm ñu di ko yóbbaale ci leen ci lu mu doon rawatina lu soxal làngu ko politique bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Amadou Ba. ku xam na ni. man maa jeunes yi. jeune Benno Bokk Yaakaar ak yeneen jeunes yi nga xam ni ñu ngi ci yeneen parti pour sensibiliser leen. je dirais même jeune Sénégal parce que tey ku ne xam na ni dëkk bi. Euh, stabilité bi dafa menacé wu parce que y a des gens irresponsables antidémocratiques yi nga xam ni ñu ngi véhiculer ay messages yoo xam ni li leen tax a jóg rek mooy taar réew mi foofu nag laay profité pour wax ak jeunes yi parce que manifestation bi préfet bi autorisé wu ko préfet bi autorisé wu ko ñoom nee na dañuy manifester par force te ku ne xam na ni nag ku bëgg a jiite réew. am na yoo xam ni boo ko defee ay acte démocratique préfet nii bul manifester nga nii damay manifester procureur wax nga génn saaga ko kaddu yu waroo ak yi nga xam ne moom la yëkkati keneen ku yëkkati ay kàddu bokk na ci Daouda Gueye xam ngeen ne moom mooy coordonnateur bu yeewi askan wi diwaan bu Pikine Ouest foofee itam askan wax la ñu xamle moo di daañu def mbooloo mu takk wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca place de la nation waxtaanee li nga xam ne nag moom moo di tolluwaayu jamono rawatina dundu gu cher yi nga xam ne sénégalais dañu koy dund ci jamono yii lee ñu teewlu ay kaddu Daouda Gueye ci micro Abdoulaye Anne. ne kat dafa aay lii euh, manifeste bi ñu war a am ñun dogal boobu noonu ñun xotti nañ ko taret ndaxte moom ci boppam préfet bi amul pour aaye ndaxte ñaanuñu ko euh, autorisation may woo waa Pikine yëpp may woo waa Pikine douze communes Pikine yëpp ñëpp ñoo xamante ni ay militants lañu wala ñu nekk ay sympathisants wala rek ay population yoo xamante ni li nga xam mooy dox ci réew mi muy jafe-jafe yi nekk ci wàllu dund gi Euh, seeraay bi nga xam moom la dund gi seer ak li nga xamante ni moom mooy ak ak yelleef askan wi nga xam dañ koy jalgati loolu metti na la ñëpp nañu génn taxaw ñëpp nañ génn taxaw ngir wan Macky Sall nag ne lu ëpp tuuru te mbiri nag ëpp na te mi ngi waaj tuuru président bu euh, mouvement l'essentiel Macky assuré moom itam euh, di sàkku ci guney euh, Pikine yi ñu daal di def seen kéem kàttan waaye itam bàyyi xel bu baax a baax la nga xam ne itam da di aw njeexital mu ñeel rassemblement wi nga xam ne mën nañ koo amal niki tey te itam ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi wax ne rek ne buñ leen ko nangulee buñ leen ko nangululee daañu amal lu ni mel te préfet bu Ndakaaru nag ci la jamono bañ ba tëdd ca ñag ba la rek daal di def Alioune Sow la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro. loxo Abdoulaye Anne ba tey. jeunesse da xam lu ko war ci dëkk euh, jeunesse dafa war a toog mu ne lan la war a defal dëkkam. mais war taxaar lu ko dëkkam di defal. dëkkam nag war noo fekk war na ko fekk mu ne ci yoon mu accompagner ko defal ko te tey ñu nekk ci jamono bu doy waar euh, situation yi doy waar yi xew ci dëkk bi ñu gis ay mag une opposition qui véhicule des messages yoo xam ne tey fu mu jëmale jeunesse bi du fu baax. te Pikine képp ku xam Pikine xam ne am na fu mu nekkoon démb am na fu mu yegg si tey. tey nag suñu projet projet bu bees la boo xam ne xam nañ ne à travers seen lutteurs ñi nga xam ne ils sont partis de rien tey nekk dara amul fooy gis amaati doone amaa ngi nii amul foo gis sook te doo gis sook nii amul foo gis boo ñaane doo te doone boo ñaa ngi nii amul foo gis ëmante te doone ëma ngi nii à ñooñ ñooñu ñooñu nañu ànd accompagner leen ñu liggéey ñu wutali diwaan bu Kaolack waaye itam dañu des ba tey ci lépp lu ñeel làngu ko politique bi xam ngeen ne ci la jamono li nga xam ne moom moo di ah, coow li bari na trop tax na itam ah, coalition jàmmi ah, gox yi daal di seeti ki nga xam ne nag moom moo di xalif bu Medina Baye ginaaw itam tànku jàmm yi nga xam ne daal dina koy dox ca diwaan bu Soudan itam ba jàmm daal di fay dikk si moom Fadel Baro di sàkku ci moom ba tey Cheikh Mahi mu daal di gën a baral li nga xam ne nag moom moo di wolu askan wi waxtaan itam. ak ñoom ngir lépp loo xamante ni da di ngànnaay ñu yëkkati wala bokk ay kàddu yoo xamante ni waroowul benn yoon ñu daal di koy teg ci suuf ñu teewlu ay kàddu ki nga xam ne moom moo di Fadel Baro ci micro Pambay Diaw Fari Gaye coowal politique gi Macky Sall jël réew mi téye ko euh, jël constitution bi tiye ko jël justice bi téye ko ñenn ci ku jegi taxawee fii di woo fitna ñoom ñu taxawee fay di leen saaga ndey ñu ne di saagante ndey jamono ji nga xam ne lan la sénégalais yi di xaar mooy naka la ñuy def ba mbay mii di ñëw ñu bay lu ñu dundee ñu ne ko sëriñ bi nag waxal yow dem nga Soudan wax jàmm am jot na nga wax fii ci réew mi pour que nag jàmm jooju noonu ñu suñuy maam bàyyi fi ndaxte nag jàmm Sénégal dañu ne dafa nekk ci kër yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci ker la nekk nag suñ ker googu buñ gisee du gisee lu ko yàq ñoom ñi nga xam ne seen bàyyi ñoo ko fi ñaanoon dañuy ñëw waxtaan ci ak ñoom ne leen ñu jàppale ñu ci. aywa ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yile jotaayu xibaar ginnaaw itam langue politique bi bi la yoon dañuy wax euh, ci aw ñaxtu ñenn ci ñoo xamante ni dañuy dund ak way laago ca diwaan bu euh, njaareem mer ba futt la ñu def la ñu xamle mu di lépp lu soxal seen àq ak seen yelleef itam joxuñu leen ko benn yoon lu mooy loo xamante ni des koy séddale fii ci réew bu euh, Sénégal dañu leen di dumo yi tax na itam taxaw nañ tàllal loxo gouvernement bi ngir rek ñu daal di leen di bàyyi xel bu baax a baax ka yoroon seen ak kàddu àdduna baat ak tontu jëmale ci ñu ndaw ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu njaareem Babacar. ak li nekk RNU bi war nañ ko auditer dans plusieurs dimensions surtout affaire concernant les personnes vivant avec handicap parce que la plupart des personnes vivant avec handicap nekkuñu ci RNU bi kon c'est normal ñu ñu bi ñu auditer ko def recensement def confrontation état des bi nga xamante ni moo nekk ci services sociaux yi ci CPRS yi nga xam ne ñoom ñu ko erreur yooyu ñu réparé ko en plus war nañu ko auditer parce que am na même ñu nekk ci registre national unique bi te jusqu'à présent mënuñu jot seen subvention ñii bu ñu demee poste du ñu fayeeku ñi bu ñu bu subvention amee comme ni fi amoon fanee ci ginnaaw bi ñuy di distribuer kit alimentaire yi dund geeg yooyu ci Covid bi am na ñoo xamante ni jotuñu même euh, euh, nu ñu koy waxee subvention financière bi financière bi nga xam ne ñu ngi koy joxe ndimbal yi nga koy joxe nga xam ñu ngi joxe mu toll ci hauteur quatre-vingt mille am na ñoo xam ne ñu ngi ci registre national unique bi te jotuñu kon loolu war nañ ko auditer bu ñu ko auditer wut ñun xam nañ ñu yoon may lu mu ñu jaral rek danañ ko def bu jaree ñu dugal recours of nag dinañ ko dugal bu jaree ñu dugal recours cour des comptes dinañ ko dugal bu jaree ñu dugal recours euh, direction générale euh, DGE inspection générale de l'État dinañ ko dugal fu mu ñu a auditer fichier bi nga xam ne moo registre national a remettre en aywa bu ñu jugee fa nga xam ne itam moom moo di uh, ca diwaan bu uh, fa nga xam ne moom moo di uh, Thiès ak lu ko ñu jege si fi nga xam ne itam moom moo di Ndakaaru ginnaaw jurbeel foofe itam ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi amal ñaxtu bokk na ci ëmb yu teel yi ak itam yenn ci xootal yoo xamante ni nag dañ koy def jëmale ci yenn ci ay ndaw ginnaaw itam ñaar fukkeel bi ak ñetteel bi yoon nga xam ne nag dañuy amal ñetti fan yoo xamante ni lay jafe-jafe ca wàllu mbuur daañu ko waxtaanee bëgg nañ itam itam ñu daal di bàyyi xel bu baax a baax moom Serigne Modou Mbacké euh, moom mooy président des pères éducateurs du euh, Sénégal Abdourahmane Diallo la dénk ay kàddoom ngir mu yeggee ñu ko. 72 heures yi ñuy def nii ndax dañoo am ay cellules yoo xam ne ñu ngi ci raison yi te cellules yooyu noonu. buñ ja buñ buñ toogee ba benn moment bi dañ ne nañ nañ nañ nañ nañ dajawaat suñ dajawaat ñu jàjjiwaat xale yi ñi nga xam ne nii tey liñ ci bëgg xam-xam parce tey bu ñëwee mbuur Euh, dernière kii comment dirais-je dernière sondage dañu xam ne Mbour dafa bëri ay violence te parfois am na ay euh, centre yoo xam ne ku mel ne centre conseil adoo mi ngi fi di dox ci mbir yooyu te léegi xale yi dañuy am ay ay violence yu leen def mais xamuñ fan la ñuy dem tey ñu ne nag dafa baax tey ñu ñëw puisque dañoo am benn euh, partenaire boo xam ne moo ñu accompagner muy SANSAS SANSAS nga xam ne day liggéey ak centre conseil ado ñu ne nañ ñëw ñu def foofu benn genre sensibilisation wax leen na leen projet bi am na ak projet bi lan lay def kon ñu ne ñun pourquoi pas ñu ñëw mbuur xool nan la ñuy demee ci population bi ñu waxtaan ak ñoom ñu xool léegi jeunes yi nga xam ne dañuy subir ay violence bu ñuy am problème yooyu ñoom fan la ñu war a mën a jooytoo ko parce que tey ñi leen di violer dañuy wax ne boo ko waxee dinaa la rey wala su ba ko déggee ci feneen dinaa la rey xale bi ñuy wax loolu moom day yaakaar na li ko waa ji wax muy dëgg fekk da koy menacer léegi nag ñun ñu ne leen dem ci ñoom waxtaan ak ñoom wax leen ne leen képp koo xam ne ni lii dalati na la boo ñëwee ci centre conseil ado bi danañ def ay orientation en plus danañ fexe ba nga ñi nga xam ne nii moo leen di def violence mu dakk yenn ci njëkk yoo xamante ni askan wi dañu koy jëfandikoo rawatina ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu bay ak la ko wër lu ci mel ni njëgum saabu bi mënees naa wàññeeku ndax ay soxna yoo xamante ni daal nañ leen di tàggat ci wàll wi bay itam ñu mën koo defal seen ak bopp lu ni mel itam ngir mu antu jot nañ aw financement bu bàyyeekoo ci ministère du l'emploi et de la formation professionnelle ginnaaw itam li nga xam ne jot nañu koo jàng ñoom soxna yooyee Babacar Diouf Ndongo Ndiaye ñoo leen seeti woon xam ne moom moyens ñuy liggéeyee. ci dëkk bi ñuy wooyee Bambey séréer jigéen ñi dootuñu soxla saabu wala eau de boo xam ne nii dañ koo jënde feneen indil leen ko ñoom de mën nañ koo defal seen bopp. lu mel nii bëggoon nañ ko bu yàgg te mënuñu ko woon am rawatina ñun jigéen ñi nga xamante ne dañoo bëgg daan suñu doole te duñu am fu ñu jaar pour liggéey. fi mu toll nii nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di sant euh, Pape Modou mi nga xamante ne moo ñu ci dugal. parce que formation bi fi mu toll nii ñu ngi commencé di defar suñuy saabu ak suñuy eau de javel te buñ si paree dinañ si mën di ci bénéficier di ci am suñu xaalis. ci cappaandaw li nag. li ñu bëgg mooy fexe ba jigéen ñi dootuñu ko jëndi feneen wante di ko jaay ci boutique yi ak kër yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan moo tax ñu indil leen modèle yooyu noonu nga xam ne li ñuy dem di ko jënd ci boutique bi dinañ dem defaral seen bopp jaay ko entre ñoom pour pas sax dem di ko jaay boutique bi boutiquier bi di jaayaat nga xam ne dinañu seen xaalis. formation bi nga xam ne ministère de l'emploi mu ngi ko jagleel jigéen ñi yemalewu ko fii rek ci Bambey. def nañ ko Touba def ko Diourbel def ko Mbacké ñu ngi jëm Thiès ak Parcelles Unité 15 dañuy dem ba Casamance dañuy dem ba Kaffrine yooyu yëpp dafa bokk ci programme bi. ci dëkk bii di Bambey Sérère nga xam ne lu ëpp junniy nit ñu ngi fi yeewoo fanweeri jigéen lan fi defal formation boo xam ne ni ni leen mën a may ñu defaral seen bopp saabu eau de ak lu ni xeetu. jërëjëf euh, Babacar mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar ca département bu Dagana xam ngeen ne euh, ci bët gànnaar bu réew bu Sénégal la ñuy wutali foofe itam coow la euh, musula fay ci diggante ñi nga xam ne itam ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbay ak itam wàllu càmm tax na itam guide bu boobule gox moom Thierno Alpha Sow daal di woolu ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di ñaari camp yëpp ngir ñu amal ab waxtaan jàmm daal di digg si foofe ñoom itam ñu mën a wëyal gox ba ba ña fa yeewoo mën di yeewoo benn benn ñu teewlu Ousseynou Diop Abib Seck reportage bi nga xam ne moom la ñu fa defal. na jafe-jafe yu mag la ñu nemmeeku woon ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi ci département bu Dagana moo tax nag kilifa di ne bii di Thierno Alpha Sow daal di woote ndaje boo xamante ni kilifa yu bare teew woon nañ ko rawatina baykat yi ak sàmmkat yi. Ah, liggéey du mun a sotti baykat bi du du mun a béy sàmmkat bi du mun a sàmm donc jàmm ji nag lu koy andi mooy ñu waxtaan jéem a déggoo si ci kàddu sous-préfet nag daal na ñu signé charte de non boo xamante ni kenn waru ko jalgati muy charte boo xamante ni kenn ku ne da nga ci war a tënku ngir jafe-jafe dootul am. ñooy sàmm yi ñu fexe ba tant que mu ngi am mbéy tant que góobuñu ñu fexe ba xaw a sori tool yi te di gën a am solo mooy ñu fexe ba euh, sàmm guddi bi ñu mën ko éviter. baykat yi ak sàmmkat yi nga xamante ne nag ñoo nekk ci département bu Dagana nee nañu loolee dañ ci tënku ndaxte bu fekkee ni bëgg nañu jàmm loolee cotte mooy mën a tax beneen jafe-jafe du am seen diggante. puisse trouver des solutions définitives il faut obligatoirement a am ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi il faut des zones de pâturage. normalement lu war ma parce que ñu ni eh, ay amul wa waxtaan a am bu fekkee waxtaan bi am na. paysans yi déglu nañu béykat yi béykat yi déglu nañu paysans yi autorité bi def na ci li ko war euh, appui conseil yi jàpp nañu ci jàmm dafay feeñ. département bu Dagana ñu nemmeeku saa su ne ay jafe-jafe di am ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi fan yi ñu génn benn sàmmkat la ñu fetaloon booba léegi nag mu nga ca loppitaal ñu ci bare na jàpp ni loolee waratul am ci gox bu nu mel. gox bu ni mel lu ni mel yàlla na fa gëj euh, Ousseynou Diop ñu àddu ci leneen loo xamante ni itam daal nañ koy màggal ca diwaan bu Thiès mu di journée de l' enfant africain mu ni mel ni nag daal nañu def aw taxaw seetlu euh, ca centre de sauvegarde diwaan bu Thiès wi nga xam ne itam moom ngeen di gis centre boobee nag di dalal ay ndaw rawatina ay tout tànk ñoo xam ne euh, dañuy nekk ci mbedd mi ay almoodu yoo xamante ni ñoom ñoo fay ñëw jébbal seen bopp ngir itam ñu daal di amal aw taxaw seetlu bu baax a baax bàyyi moom Badara Dieye moom mooy euh, directeur bu boobule euh, centre daal dina yëkkati ay kaddu ay kaddu dénkaane yoo xamante ni bàyyeekoo na ci moom jëm ci jur yi Cheikh Anta Diop ak Sélatiir yi centre yi ñuy duppee ay centre sauvegarde ay xale yoo xamante ni dañoo lécc am jafe-jafe ak yoon ñoom lañ fi indi di leen yaraat centre sauvegarde bu Thiès bokk ci centre yi dalal xale yi waaw xale loo xam ne ay xale maanaam yi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe mën na doon ay jafe-jafe ak wàllu yoon am na ay xale yoo xam ni mën nañu def loo xam ni yoon da koy tere ba yoon jàppale yooyu mooy les enfants en conflit avec la loi xale yoo xam ne aussi dañoo nekk ay jafe-jafe rek ak seen kër mën na nekk problème de violence mën na nekk problème de viol problème de défaut d'entretien ak yu bëri. fii ci région bu Thiès nag ñu gis ne ndaw ñi nga xamante ni dañuy am ay jafe-jafe di taxawaalu ci mbedd mi wala ñu leen di def nag su noonu bari nañu waaye nag Badara Dieye di fàttaliku nag nguur gi teg na ay pexe ngir xale yooyu ñu leen di wot bu baax taxawu leen. service su d'espèce ak yu état yi ah, yu nekk ci région bi mooy saa yu xale am jafe-jafe. am na tribinal boo xam ni tribunal pour enfant lañ koy tudde boobu tam xale yi rek moo ko fi tax toxo état bi loolu yëpp la def pour que xale bu am jafe-jafe ñu man la euh, gunge euh, jàppale la tegaat la si yoon pour que ëllëg ñu mën a compter si ñoom pour def tabax Sénégal. li si gën a am solo mooy démarche bi ñuy am famille yi parents yi ak communauté yi ñuy waxtaan ak ñoom ak euh, li gën si xale yi pour que ñun ñëpp ñu jéem a taxaw xale yi. ñu doon amal bëccëg ko nag. tout tànk yi nekk ci Afrique thème bi nga xamante ne nag jëloon nañu ko moom mooy fexe ba xeex li nga xamante ne day gàllankoor xale yi ba tax ne seen théâtre yi ñu doon amal de fësal na ne ñoom kenn waru leen jiitu ci xeex bi Cheikh Anta leen di indi ay gàllankoor bokk na ci bundu xataal wala bokk xotti war mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di tut tànk yooyee lépp lu soxal itam ah, seen ak ak seen yelleef ñu daal di koy ah, salfaañe lu ni mel itam bokk na ci loo xamante ni ah, daal nañ koy jukki ci yenn ci ay gox yoo xamante ni fa lañ màggale journée wi nga xam ne moom lañu jagleel tut tànk yi bokk na ca diwaan bu Sédhiou itam foofee lañ fa nemmeeku gis ngeen tut tànk yooyu nga xam ne nag teew nañ la ñu bëgg itam di ree saa su nekk Bakary Konte autorité administrative locale éducative ak xale yi jóge nañu ci gox bu nekk fii ci région bi ñoo fekkee trent deuxième édition journée de l'enfant africain buñ ñu doon màggal fii ci diwaanu Sédhiou Sédhiou nag nekk na gox boo xamante ne bëri na ay sëy yu teel viol ak excision autorité yi nag daal di taxaw tem di xeex lépp loo xamante ne nekk na jafe-jafe xale yi. L'État ne peut pas choisir un, policier pour chaque enfant. L'État ne peut pas choisir un gendarme. avec chaque enfant waaye la famille demeure la première cellule d'éducation je lance un appel sunuy yaay sunuy maam sunuy waajur yi toog fii depuis ci suba sunuy baay nañu téye xale yi placeu xale ci biir kër la placeu xale du ci mbedd placeu xale du taxawaalu nañuy déglu sunuy doom nañu bàyyi xel suñuy doom te ñu xam ni état dafay accompagner kese waaye la première cellule d'éducation demeure la famille. autorités locales yi ñoom nag ñi ne dinañu boole seen i doole def ko benn pour xeex jafe-jafe yi xale yi di dund fii ci région bi. nous collectivités territoriales. ñun collectivités territoriales yi. engagé nañu képp xale boo xamante ne mu ngi dund fii ci suñu gox dinañu taxaw temm quelle que soit situation personnelle ou sociale bu muy dund ba dignitéem kenn du ko yàq. leur enfance dans la dignité. de protection de l'enfant boo xamante ne préfet bu département bi moo ko jiite di Ngoné Cissé ñoom nag amal nañu ay activités yu bëri ay activités yu sensibilisation ci département bu Sédhiou loolu yëpp pour mën a aar xale yi yi dëkk fii ci doon Pakaaw. xale yi ay moomin lañ ñu war a bokk ci euh, société bi lañu tax na itam ñenn ci ñoom ñoo xamante ni dañoo am jafe-jafe ci wàllu xel ñoom itam delloo nañu leen njukkal bu baax a baax ci aw concert woo xamante ni dagg nañ leen koy euh, jagleel concert euh, musical woo xamante ni nag ambassade d'Israël ak itam bu Italie ñoom ñoo amal boobu la initiative ngir jox seen ak ak seen yelleef yooyu lee tuut tànki Ibou Diouf Pape ne mbay ñoo dellu siwaat ak ñun ci boobu la xew-xew ñu seetaan la ñu fa jëlee. muy lu ñuy faral di woowee opera jaas wala opera muy tamit xeetu musique buñ dul faral di gis fi ci réew mi nag ñi koy amal tey bàyyeekoo itali ak itam Israël. parce qu'il s'agit de soutenir. waaw muy soirée boo xamante ne li ko tax a jóg mooy jàppale gone yi nga xamante ne dañuy dund ak feebar xel moo tax biñ ma ko waxee ma ne naa def kem talaay kàttan ngir teew fi. sensibiliser autour de la question de l'inclusion. waaw gën a wax ak askan wi rawatina ci lu aju ci gone yooyu nga xamante ne dañu amee ay jafe-jafe. wax ak euh, gën a ñaax tamit euh, suñuy partenaire lu gën a jàppale association bi la. qui est l'une des importantes associations qui travaille ici au Harmonie opéra jazz muy concert bu am solo ñu amal ko fi ci Ndakaaru ngir li ci bàyyeekoo ñu mën ci taxawu xale yi amee feebaru xel. Abdoulaye Cissokho moom tamit ci ñu xam ko lool ci Kora teewoon na ci soirée bi li ngir indi participation nous avons eu waaw ci biir soirée bi gis nañ ci taxawaay bi réew Sénégal am Israël ak bu Italie. cet élan qui était représenté. ñu suñu xarit yëpp fi tase ngir euh, li nga xamante ne moo ñu tax a jóg ñu fexe ba mu antu. gis-gis bii nag waa ambassade du Israël lëkkaloog ambassade Italie ñoo ko amal muy ab soirée musicale fundraising. bu boole harmonie mélodie opéra ak jaas ñoo ne nag bi li xew-xew li ci bàyyeekoo ci wàllu koppar fas nañu ko yéene jébbal xale yi nga xamante ni ñoom ñoo amee feebaru xel. mu doon lu am solo Ibrahim ñu àddu ci leneen mbokk yi muy li nga xam ne moom la xët yu njëkk yéen yi xëy fësal ni ki tey ji ci aljuma ji ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. Dieu ñu jégalu bu baax a baax ci dog-dog wi nga xam ne am na ci li nga xam ne moom la yéen yi xëy fësal Mamadou Mouhamed Ndiaye la ñu ci namoon àndal ñu ciy jégalu bu baax a baax mbokk yi foofee la ñuy jaar daal di yëkkati euh, jotaay wi dig daje ngoon incha allah à partir de 19h30 20h itam ci yeneen i jotaay daa ngi ci ànd ak rédaction bu euh, télévision Futur Média waaye itam way leen di des ak programme yu TFM euh, fii ci télévision Futur Média leneen lu leen di jukkil ak suñu ay yeneen i ndaw yoo xamante ni. ci la jamono ñu ngi ca diwaan bu Paris waajal li nga xam ne nag moom moo di Bercy wi nga xam ne daañu ko amal ngeen ci ànd ak Youssou Ndour njiit bu Super Étoile lu may loolee itam ñu leen di jaajëfal bu baax a baax te leen di leen di wax kendal ak jàmm.